Non, non, c'est pas parce que journaliste nañu rek qu'on doit parler de tout hein. Bien sûr am ci lenn loo xamante il faut ñu teg sur la place publique ndax euh, réew ay nitu ko bokk euh, am ñuy jité am ñuy jité mais ñi ci ëpp am ñu bëgg jité mais ñi ci ëpp moy ñi ñuy jité donc lepp lu ñuy def ñu koy def ci sen tour ñu koy def ci sen cadre ñu koy def ci jëmale ko ci ñom dafay am solo nit ñi leg leg ñuy am même bu ñu xamul lépp it ci ñi am ay njort par exemple wax nañ fi léegi né Sénégal jënd na ay armement depuis 2012 mais lolu programme la bindu nañ ko conseil des ministres daf nañ fi ay euh, ay cause de mission yoo xamante ne dañ fa génn ñu né gouvernement bu Sénégal de ci 10 ans yi di ñëw wala ci 5 ans yi di ñëw wala ci 6 ans yi di ñëw dina renforcer euh, armement manam dina renforcer ay ngannaayam ci gendarmerie ci police ak nangam foofu lañu ci yem du ñu dugg ci détails yi euh, débat nag am na ah ci àdduna bi est-ce que dañu war a waxtaane mbirum armement de façon publique ou pas ku ne am nga sa xalaat mais li ci am ba des mooy tey man wóor ma ne man Bamba Kassé bu moo tase woon benn militaire sénégalais fii rek ne ko sëñ bi mu waaw militaire laa de bu nekk en activité ma ne ko est-ce que xam nga Sénégal seen armée yéen ñaata fetal la ne du ko xam mën nga bokk ci ñi gën a kawee ci armée wala ci gendarmerie wala ci beneen corps xamuloo suñu arsenal nu mu mel ak fu mu toll ñu koy xam ñu néew nañu doon lu tax ñuy wax secret défense il faut ñu gën ko leeral parce que ku xam euh, fa nga jëm ñu ko wolof di waxee sax doo teel a yegg secret défense dafa ànd sax boo xoolee code code justice militaire ak yooyu. am na si yenn xeetu information yoo xamante ni boo ko xamee parce que danga nekk ci biir armée bi wala nga nekk ci biir gendarmerie wala nga nekk ci biir corps yu mel noonu. ba pare sennal ko waxuma la nga sennal ko ci mbedd mi de mais nga sennal ko sa soxna bi nga bi nga bi nga tëddal wala nga wala nga sennal ko ci ci mbedd mi mais mën nañ la cour martiale nga jëm dañ lay dóor fetal nga dee ndax dañ da nga jaay secret donc il faut l'importance il faut que vous oui il y a toujours des moyens hein, parce que d'ailleurs c'est intelligence la bas lu intelligence en anglais euh, renseignement Nous ñi dañuy courti, courti, di pour xam mu ne militaire quelque part ñoom daanaka presque ay attaché militaire daanaka ay espion mais c'est des espions reconnus quoi dañuy toog dañuy xam li xew ci àdduna bi en terme militaire donc problème bi nekkul foofu problème bi également mënul nekk ci ne ñu ne woy ministère des euh, ministère euh, bi yor wàllum aalam bi waruñoo am ay jumtukaay dañu war am ay jumtukaay drone yi du lu bees ah boo demee ñokkal ko baa déjà ñu ngi utiliser ay drone parce que tey foofu la xarañte àdduna toll. doo ñëw jël benn camion def ci ay cent cinquante personnes def ci euh, sept cent litres gasoil. ñuy tërërër yi dugg ci àll bi di polluer di kii. léegi drone bee kay def. da toog am sa salle de commandement. am say drone sànni leen ñuy dem ca kaw ba kenn du leen gis ñuy wër ngay xool ci image yi di xool fan nga war a mën a intervenir loolu ci efficacité la bokk donc amul benn sénégalais buy taxaw naan woy gars yi waruñu woon jënd ay drone wala waruñu woon jënd ay patogas. wala waruñu ñu jënd ay ay ay ceinture wala waruñu ñu jënd ay fetal mais il y a un grand mais contrat bi am nga ko yow. yow. non sax ma la koy wax. non am nga ko damay laaj rek boo amee neel waaw boo amul ne aw ma. am na ko d'après li mu expliqué kañ am na ko. Ah, contrat baa ngi ci réseaux sociaux yi. un contrat estampillé secret défense man mosuma ko gis ah. bu wër. mais parce que. non non non s'il te plaît Soya na ku ne jël sa temps parole Tay fi amul dagaté. contrat buñ né dafa secret muy wër ci whatsapp yi ana secret bi. ku ko génne. xaw ma mais même boko xolé contrat buñ def secret défense da ngay gis ñu def ci tampon bu xonq def secret défense. tag est-ce que c'est non dafa ndànk rek. est-ce que c'est un bon contrat exactement est-ce que je ne sais pas je ne sais pas. donc tu as je ne sais pas dama ne. est-ce que c'est le bon contrat dama ne contrat pour nous estampillé secret défense. du n'avons ci téléphone yi. c'est impossible. wala de toute façon il y a un gis téléphone yi bu fekkee ne am à cette échelle là il y a quelqu'un qui a très lourdement fouté. Vous faites qu'un contrat secret défense ce li ma xam te lépp ñëpp gis ko ci réseaux tampon secret défense. mais c'est écrit noir sur blanc.

sa sa zone rafet na trop mais nag bàyyi ma wax sama xalaat. sinon ah, dootoo wax de. précision la rek dama doon préciser. man mu amoo la may préciser man li ma wax lu leer la dama ne. contrat bu ñu bind ne contrat loo xamante ne secret défense la. man journaliste Bamba Kassé laa wax de. Mhm. le jour où quelqu'un m'envoie un contrat de l'armée nationale du Sénégal. na ma lii la gars yi jënd arme bu ma ko ubbee muy moo dama koy dilee. mais der mun naa wax xamalu la der xamalu la mun naa ko wax foofu. xamalu la bu soree du ma. non xam non non non non der du ma nangu lii non ah. ma ko nangu. vas-y du ko nangu. jëlal sa bic sa feuille li may wax nga bind lu ma d'accord bu ma paree nga wax da ngaa wax pendant vingt cinq minutes waxuma la dara nga bëgg ma bëgg saa bu ma bëggee wax nga bëgg ma dagg pour la contrat secret défense encore une fois mooy contrat boo xamante ne ci sutural nañ ko war a defee ci sutural nañ koy exécuter kenn waru koo gis mbedd mi loolu mooy sama premier problème ci contrat bu contrat secret défense Ben, benn ñaareel bi ma problème bi mu toujours au niveau de la forme mooy gisuma ci tampon bu ñu bind secret défense. am na ay budul contrat sax dafa am ay documents administratifs yoo xamante Secret. man aw ma droit am ko. parce que simple citoyen la wala xëy na fu ma nekk aw ma droit gis ko. Hmm. mais mën na sa ay courrier

ñu jël au Sénégal sànni ko ci digg le bi ñëpp di ko dëgg ci di ko xool loolu dafa dafa déjà loolu quoi on ne devrait pas en arriver là ak ku ko mën na muy diggante ñaari marchand d'arme kenn ki amul marché bi. sens. li sens on est la risée parce que au moins le contrat est tout le monde sait qu'on a acheté 1500 fusils d'assaut tout le monde sait qu'on a acheté 1600 paires de patogas ou de ceintures. Tout le monde sait qu'on a acheté 1500 bérets. 1500 sacs de couchage. C'est pas normal. est-ce que vous, Gambé, dañ ko xam Ou est-ce que vous, Mali dañ ko xam Ou est-ce que vous, Mauritanie dañ ko xam. donc c'est un problème maintenant ce que vous savez, quand même moi, je jaaxal ci affaire bi parce que léegi il na a gis nañ ko et je pense que l'homme est dangereux.

En 2022 ce lañu daan gis lu lu budget armé. quest adopté parce que si nous sax faisons discuter di voir nangam ak nangam culture la bu Sénégal d'accord maintenant vous vous faites ñëw après on gis contrat vous ñu naan la chargeurs am na ay ce sont tous soixante-huit éléments la boo jëlee à peu près y a une vingtaine il y a ko considérer comme des armes wala assimilées à de l'armement loolu on fait faire l'objet d'un contrat bien entendu boo xamante ni secret défense lay nekk mais li ci mais nañ ko nest nañ na transparent boo xoolee loi de finances rectificative wala nga xool loi de finances loi de règlement nga gis ko il ñu ne lii kat prévoir nañ parce que c'est simplement des équipements mais boo gisul loolu yëpp nag ñu jekki-jekki nga gis ay journaux et cela aussi il faut que ñu taxaw parce que dama gis gars yi naan le monde wax na ko ñu euh, mu tuuti euh, ban média na nga ay Jeune Afrique xam ay mais Libération wax na man Sénégal Libération moom ko exactement Libération aussi. journal sénégalais la. journaliste ay journal sénégalais ñoo fa peut-être qu'ils font partie du consortium parce que léegi adduna bi nag ay consortium de journalistes.

donc l'eau aussi pour moi le monde Afrique c'est un média africain qui exploite le marché africain hmm. c'est un média qui est en Afrique qui exploite notre marché comme tous les autres médias non non non comme tous les autres médias maintenant il peut y avoir des links Mais ce n'est bon mais c'est pas parce que le monde africain est que bon ñenn ñi ñu média français il ñenn ñi en tout cas d'être à la solde ou en tout cas d'être les portes voix porte-parole de l'État français. man journaliste man journaliste man mënuma gëm loolu. oui hein. bon. xam nga lu parfois c'est difficile tamit. parce que gëmuma APS. bras armé au état du Sénégal la. comme ko. ku mu neex na nga gëm bu fekkee ni lu français yi en tout cas man ce qui ci intéressé ce n'est pas parce que un média français moo ko que dañ ko a jox plus de gëdd. que beaucoup de média sénégalais bindee.

contrat bi d'ailleurs waji bu andé ben bagage bu bagage bu baaxul da koy sur 14 jours. Ah, d'accord mais quand le même contrat moné 6 mois après. Mhm. tous les éléments yi nga xamante nécessité wul ben licence d'export. et là boko de moy tout ce qui n'est pas arme létale wala munition mhm. dañ ko wara livrer nga contrat bi c'était en janvier 11 janvier janvier février mars.

sur quoi mais mais sur quoi bu non non. non le porte-parole du gouvernement pour chaque jour nous dégg information. Nous du information Nous ci table ji Nous donc lu la non mais non non non n'est-ce pas. nous Nous contrat la le contrat dit que tout ce qui n'est pas arme et munitions dañ ko war livrer six mois plus tard mais fii Sénégal chaque jour bu ñuy bu ñu jënd ay oto pour police wala ñu jënd ay camion pour sapeur pompier wala ñu jënd ay yenn duñ ko wane télé. duñ ko wane waaw. dañ ko wane wala duñ ko wane. waaw yàgg nañ ko wane. waaw donc pourquoi léegi lii bii duñ ko wane d'autant plus que on est dans une sorte de nébuleuse où chacun accuse l'autre sans vouloir le dire mu ngi ne ah waa ji dafa ruubal non gars yi ñoom ñaar dañoo tëju affaire bi contre signé ko ah gérer ko nekkul ci budget bi gisuñu ko loi de finances rectificative gisuñu ko fii gisuñu ko fa mais lool bu amé pour jekki tuuma pour tégal tuuma da ngay teg bagage nañu gëné ne bagage yaangi ni ñëw na li ci liñ ñu xol liñ ci mëna woné mm-hmm. li nga xamné du ay ngànnaay ñu woné ko xamni affaire bi dund bi lees quoi mm-hmm. c'est pas un faux marché wala ben fausse truc bu gaay signé pour ñu boko deful nak sama mëno téré ben sénégalais muy kuy politique ku ñàkkul politique mëno téré kenn ah non non non gars yi dañoo ah donc communication bi efficace vous Le gouvernement bi. le na la question. mais mais mais mais c'est